ñu fas yéene leen nekk leen ak benn histoire boo xam ne histoire bu yéeme la mu nekkoon benn buur bu ñu wax Ridwaan yàlla dimbali ko nag nguram googu mu sax diir bu yàgg wax ne amul benn jafe-jafe si diggante am waa dëkkam nga xam ne lépp lu soxla rek ñoo ngi koy am si dëkk ba ba pare nit ñëpp bëgg ko daal waaye nag moom Ridwaan moomu lenn kese moo ko manqué woon mooy doom joo ne bu faatoo dina ko mën a wuutu si nguur gi ndax daan xalaat dëkk bi ñu amee jàmm yooyu nga xam ne bu faatoo force nit ñi fi nekk di jéem a xëccoo nguur gi yooyu te loolu mën naa indee fitna a dëkk bi te it moom bëgg na bàyyi daal njaboot goo xam ne danañ ko ko dañ ko yooyu bu mën a doon nguur gi. nga xam ne ci loolu la nekk na continuer si diir bu yàgg waaye benn bis soxnaam si daal di ñëw ne ko dafa am mu daal di kontaan lool nag moom Ridwaan ngir soxnaam si tool gi mu toll diggante yi yooyu. waaye yëg su loolu mu di gaaw dajale mboolem njabarkat yi nga xam ne ñoo nekkoon si dëkk bi ak gisaanekat yëpp mu dajale leen ne def leen seeni xar foofu fa ngeen xool sama doom ji ba xam dina juddu ak bu juddoo ba am góor lay doon wala jigéen ak lépp loo xam dafa aju ci ay mbiram daal ngeen xool léegi gisaanekat yi daal def seeni njabar def seeni njabar ba daal ne ko daal sa doom ji dina juddu te bu juddoo doom ji góor lay doon waaye nag dina am ay jafe-jafe yoo xam ne dina ko gaar si ak dundam mu daal leen laaj ñeneen jafe-jafe yooyu lu mu doon ak nees la man di def ba fànq ko daal lu ko daal ñu daal da ko dire loolu moom wax dëgg yàlla mën nañ ko mu daal leen jox alal ju bari daal leen wax ñu dem dellu ci seen it léegi bi doomam jooju juddoo nag mu daal koy tuddee boppam tuddee ko Ridwaan daal koy fonk lool waaye waa dëkk bi ñëpp tamit daal koy bëgg ba comme niñ bëggee baayam léegi moom doom ji nag bi mu demee ba màgg ba dëgër nekk mag benn bis nag bàyyi ji daal tëdd ba xaaju guddi ñaari jëmm daal koy feeñu ñaari jëmm yu ñàng daal koy jàpp nga xam ne nekkul gént nekkul dara waaye fi mu tëdd sa lalam di nelaw fi lañ ko fekk saq ko daal di koy yóbbu si benn lu dañ koy yóbbu si beneen monde daal yóbbu ko fi xam ne ne kàmb sawara gu mag moo fa nekk yaa di koy jàpp daal di koy tiimal ci sawara si mooy mu di ko lakk ñu di ko wax naan ko ñun suñu kilifa lépp lu ko di dikk di ko def te liggéey bor la di ko lakk ci sawara si di ko lakk ba kanam gi daal lakk ba ñuul kukk bu mu xëyee suba nag moom nga xam ne ruus na sax di jàkkaaroo nit ñi ministère yi yooyu noonu waaye lu wut benn masque boo xam ne moom la sol si kanam gi ba xam ne duñ gis lakk-lakk beeg yooyu ci la dem nag daal dajale mboolem jabarkat yi nekk si dëkk bi yëpp ñu ñëw mu daal leen laaj euh, loolu la moo ko waral daal dinañ lay def ba ñaari jëm yooyu noonu euh, ñu bàyyi ko. léegi jabarkat yi daal di a xool def seen xam-xam ñu am yëpp ñu nag ñun de wax dëgg yàlla sa lii moom ñun amul si xam-xam waxamuñ ci dara léegi ba guddi jotee ñaari jëm yooyu la koy feeñuwaat daal koy fekkaat fi mu traditionnel bi ñaari koy seq yóbbu ko fu sori daal di koy tiimale ci ay kàmbi sawara di ko lakk di ko lakk kanam gi naa ko déggee bor la te suñu kilifa lépp lu ko nit def dik di ko def mu naan leen waaye yéen yéenay ñan ak seen kilifa googu moom mooy kan ak lan laa ko def defuma ko waaye ñoom faale ñu di ko wax loolu rek naa ko ñëw suñu lu ko ni dikk di ko def te di nga bor la di ko lakk si sawara di ko lakk ba kanam di lakk bu ñëw kukk ñu bàyyiwaat ko bu mu xëyaatee suba nag daal di woowaat njabarkat yëpp daal ne leen léegi tey ji bu ngeen waxul li nga xam ne moom laa gis nii man moo ko waral ak nan laay def ba mucc ci jëmm yi jàpp ma di ma yóbbu di ma lakk xam ne ne ñëpp dama leen di rey nee ñoom ñu def seen i jabar di gëstu di gëstu def i jabar ak seen i gisaan ba sonn daal di koy wax ne ko buur kon de xam naa da ñuy rey rek waaye ñun de wax dëgg yàlla sa problème bii ñun xamuñ ci dara te mënuñ ci dara buur bi daal leen bàyyi ko sa topp nag ñaari jëm yi daal di ñëwaat fu mu tëdd daal di koy jàpp yóbbu ko ci ay kaam bi sawara di ko lakk di lakk kanam gi naan ko ñun suñu kilifa lépp lu ko di dikk da nga ko def te diggee bor la di ko lakk mu leen laaj naa leen waaye ni ngeen may nii lu mu doon seen kilifa googu ngeen wax moom mooy kan ak man lan laa ko di def defuma ko ñoom kon continuer di wax li ñuy wax rek Tapha Leñ ko moom lu leen di tontu di ko lakk si si uh, kii bi sawara si di ko lakk di ko lakk ba kanam ko xam ba ñor kukk yaa di koy bàyyi. léegi doomam ji nag nga xam ne moom la tuddee boppam mu tudd Redwan moom laa tëdd ba xaaju guddi benn jëmm daal koy feeñu benn uh, bu màgget daal di yor benn sikkin bu bu gudd bu weex tàll daal ne ko yow sa bàyyi de lii di ko dikkal nii nii man rek ma maa ngi mën a taaxale ak moom. daane ko te boo bëggee euh, loolu di ko dikkal bu bàyyi ko mooy fekk si dëkk bu ñuy wax saam boo demee sa dëkk ba euh, boo demee sa marché bi nekk sa dëkk ba nga laajte jëmm ju ñu wax alhabdul mu'min boo laajtee jëmm ju ñu wax alhabdul mu'min waa marché bi daf nekk ñëpp xam nañ ko daan la tegtal ba nga ñëw si man léegi moom bi mu yeewoo si gént googu nag daal koy nekk li yaayam yaayam bi koy wax bàyyi ji waaw da ko wax loolu kay na ko gaaw def man li may dal ñu xam nga metti na daal di koy waajal nag daal di koy joxe mor yu bari sutuku bi yëpp daal di koy booleeg ay gaay mu daal dem nag pour dem sa dëkk boobu ñuy wax saam dëkk bu sori lool dee nag mu dem nag am si yoon wi ay fan di dem di dem dem sa dëkk ba bu dee baag sa marché ba nag di laajte waaye képp ku mu laaj daal man de alhamdul mu'min laay laaj mu ne ko man wax dëgg sëñ bi kooku mu xawma ko mu ba sonn ñu ne ko yow xamuñ ko fii mu daal di sonn nag daal tëdd si benn ron garab bu ñu tuddee nelaw jëmm jooju daa koy waar si gétt yi daan na ko man la alhamdulilah moom mi maa la waxoon ne la nga ñëw si dëkk bi waaye li tax man la nga ñëw fii ma si dara lu eh, test la ba xam ne li ma lay wax doyloo nga ko wala déet ba xam ndax ma mën a am confiance ci yow daal waaye xamal na sa dëkk bii nii eh, li tax eh, sa bàyyi loolu noonu di ko dikkal ñu bàyyi ko li tax li ma lay defal ba loolu dañ du ma la ko def léegi. daa ne ko léegi su dëkk ba nga daa ne ko eh, boo fa delloo man dinaa la eh, wax na tegtal boo si jaaree sa bàyyi loolu di ko dikkal noonu dina ko eh, nelaw yi nag découragé daal ndax coono yi mu ci tukki beeg yooyu léegi mu daal yëpp daal di seen bagage daal dellu boobu sa dëkk ma nag ba am fa ab diir bu yàgg waaj daal koy feeñuwaat jëmm jooju noonu daal di ko wax na ko léegi boo bëggee sa baay lii di ko feeñal ne mu bàyyi ko da ngay dem sa dëkk bu ñu wax saam nga laajte fa boo demee ba ci marché ba nga laajte fa jëmmoo ci ñu wax alhamdu wal mumin boo la ko laajee ñoom ñëpp xam nañ ko boo boo faxee loolu rek dañ la indi ba si man léegi nee na moom mu wax ko si gént gi ne ko yow man loolu nga ma waxoon te moom dama ba àgg dañ ma wax ne ma jëm yooyu ñun xamuñu ko mu daal ne ko mbooloo ma nga ànduloon moo tax bi yoon booy dem dangay ànd yow kese boo demee boo laajtee daan la indi si man ci la ko nag ne lay kon demal nga la jinne ji wax ci gént gi demal sa dëkk boobu noonu nga fekk ko fa dem nag daal ànd moom kese dem sa dëkk boobu ñuy wax saam ba mu demee ba yàgg sa nag di laajte naan leen jëmu ji ñu wax alxabdul mu'min lay laajte waaye comme laaj nga ne ko man wax dëgg yàlla koo ma xamoo ko ba mu demee ba sonn nag mu daal fay gis benn waaye boo xam ne dafa mel ne waa ji tamit moom la doon seet daal di ñëw ci moom ne ko yow yaay Ridwaan mu ne ko waaw mu ne sa bàyyi tudd Ridwaan mu ne ko waaw mu ne kon ñëwoon nga ànd man yóbbu la ci alhamdul mumin ñu daal di ànd nag ñoom ñaar di dem mu topp ci ginnaawam ñoom ñuy dem ba àgg si géej gi waa ji daal di ko wax ne ko eh, abdul mumin dina yebal koo xam ne dinañ jël si fii ci géej gi yóbbuñ nee ñoo fay nekk nga xam ne am nañ fa juróom-ñaari fan si tefes géej gi te waa ji nee na du ko gis muy sonn wala muy yuqat tey du lekk du naan daal xam ne ki dal bu nit daal tam waaye moom Ridwaan nag nee na bu xiifee day dem si mool yi nekk ci tefes gi daal lii ni ay jën ñu may ko nga xam ne si loolu la nekkoon di ko dundee diiru juróom-ñaari fan yi waaye ci noonu lañ jékki-jékki daal di gis benn gaal mu jógee ci biir géej gi di ñëw nee na waa ji daan ko gis nga gaal gën di ñëw waa ji ko di ko dawal moom du nit Abdul Momin moo ko yebal waaye bu ñëwee ba jël ñu duñu yóbbu yow biir eh, yoon wi yëpp bul ci wax ak moom lépp loo gis la jaaxal déema ko nga laaj ma ko ma waxal lu doon waaye bis boo waxee moom xamal ne di nga sànku bi boroom gaal gi agsee nag ñu daal ci yéeg ñoom ñaar di dem di dem biñ demee dem ba si digg géej gi nee na ñu daal jékki-jékki daal di gis ay xale jigéen yu bari ñu wax ne seen xar kanam nii ak seen xaaj yu benn wet ki daal day mel ne nit nekk ay xale jigéen yu rafet waaye seen weneen côté bi ci des yëpp day nekk ay jën léegi nag ñoom nee na ñuy fay di ñëw di ñëw ba ak si si gaal gi daal jàpp ci cati gaal gi war ko mu fees dell di wax ak moom Ridwaan naan ko ñun suñu kilifa lépp lu ko nit di di nga ko def maa ko diggee bor la léegi bi ñu ko waxee nag moom ragalu leen daal. mu daal di wax waa ji ko doon yóbbu daal koy dee ndànk ne ko ñii ñum doon mu ne ko ñii alxabdul moomin moo leen yebal ay taalibeem lañ moom waa ji nag waa ji ko doon yóbbu daal di am baat yu wax nee na ñooñu dem daal di bàyyi. nee na daal di continuer yoon nag di dem di dem ba àgg si benn il si biir géej gi benn il bu yaatu ñu daal di wàcc foofu nee bi ñu fa wàccee ñu daal di gis benn palais bu yaatu.